الصمام ضربت أنسا ولا ذكرت ما قادم العام من عيب ولم يلوم mbokk yi ñu waxaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu may ñu rek ñu déglu tuuti rek ñu am ay kàddu yoo xam ni il faut ñu sànni ko waxe léegi rek ku déglu yàlla na fekkee déwén déglu yàlla say ajo sànq damay liim bi ñu paree mu am yeneen mbokk yu teew euh, Babacar Sall avocat dama ko tudd rek en tant que Babacar Sall avocat mooy président wu ASBP Babacar Sall euh, mooy président wu ASBP vraiment kon teew na fi ci ñaari casquette président a euh, Ababacar Sall avocat euh, waa ñi ngi sant aussi di gërëm suñu grand Mamadou Ndiaye Mabé yi vraiment mu ngi ñu gunge ci liggéey bi bàyyiwuñu benn yoon ñu wéet ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di sant moo nami Alioune Ba AB Vision AB TV di sant aussi moo Ndiaye Ayo ci seen teewaay ñu ngi leen di sant bu baax euh, maa ngi fi gis léegi Moustapha Diagne moom ñu ngi koy sant di ko gërëm Euh, yal na yàlla yàggal ko ci suñu kanam moom it am liggéey bu am solo bu muy def ci kanam askan bi waaw daayira silatu rahim bu bu Bergamo dañ fi teew teewal fi confédération Lombardie teewal fi aussi zawiya bu Bergamo vraiment mu nekk loo xam ni wax dëgg yàlla lu ñu rafetlu la vraiment di leen ñaanal yàlla yàlla dëgëral leen yàlla guddal seen fan yàggal seen taxawaay vraiment kontaan nañu lool ci seen teewaay waaw Djibi Touré vraiment moom def déplacement Allemagne ba fii ak euh, ànd ak ay xéwal yu bëree bëri moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm yàlla na yàlla fay ko donc je disais que daayira Silatu Rahim bu Bergamo waaw lay Mbeng ak Papalay ak euh, Ibrahima Gueye ànd vraiment ci turu président xalifa Gueye ñëw fi ndaale fi ay teranga vraiment euh, ñu leen di wax ni kontaan nañ seen teewaay Moulay jërëjëf Euh, boo demee nga ni président xalifa vraiment kontaan nañu parce que vraiment du tànxamlu moom loo ko wax rek mu def ay yitte ba taxaw ci waaw loolu na ñëw nañ ko jiital ñu dimbali ñu rek tuuti ñu déglu parce que li ñuy wax ni lu ñu ñor la ku déglu rek yàlla na yàlla faj say ajo Ibrahima ñu dimbali ñu rek ñu déglu tuuti séddale bi buñ ko mënee def ak noppi. mbokk yi dañu ne rek am na kàddu yoo xam ni mënuñu koo bañ a wax gannaaw nag bañu santee jigéen ñi seen taxawaay waxoon naa ko sànq maa ngi koy waxaat ba ñu nee gàmmu ba léegi noppale koo ñu du ma tudd tur nag waaye yaasin ak ñi ma àndal ñëpp gis nañu ni ñu taxawee yal na yàlla yàggal seen taxawaay yal na yàlla dëgëral leen seen kër yal na yàlla fajal leen seen aajo di sant nag tamit. mbokk yi ñu may ma nopp rek s'il ñu dimbali ñu tuuti rek ñu déglu euh, di wax ni euh, union culturelle des Tidianes de Brescia balaa may wax lu ko tax a jóg damay wax liggéey bi ñuy liggéey. dañu nekk benn bureau boo xam ni euh, dañu nawlante dañu bàyyante xel te ñun ñëpp li ñu tax a jóg mooy liggéey rek lillahi wa rasuli ak ngir tarixa bi ba nga xam ni lépp lu am lu mën a am lu mu mën a doot dañ koy waxtaane moo tax ba euh, lépp lu ñu jël comme décision rek na wóor ni lu ñu waxtaane la ci xel parce que nag ay borom xel rek ñoo fa daje waxtaane ko ba li majorité bi wax ñu nangu ko ànd ak ñoom ci loolu kon loolu ñu leen ci sant di leen ci gërëm muy bureau bi di sant nag képp koo xam ne rek yaa ngi ci union culturelle des Tidianes de Brescia di kontaan ci seen taxawaay waaye tey jaadu na ñu waxtaan ak yéen mbokk yi boo leen seetloo fu ñu gàmmoo ren man nag su may wax bu ñu ma déglul du xam lan laay wax Moulay jërëjëf yal na yàlla fay leen jërëjëf Moulay jërëjëf mbokk yi boo leen seetloo fu ñu gàmmoo ren déwén duñu fa gàmmoo xam ngeen lu ko waral parce que ñu fi ñuy gàmmoo benn ñaar ñun sénégalais dañoo am ay comportement yoo xam ne fu ñu dem dañ koy def mënuñu ci dara nag lu ñu jël ay disposition disposition mënu ci dara ñun dañuy togg togg yi méngoowul ak saali suñu organisation boo leen xoolee mbedd ma ma nga fees dell mu nekk ay critères yoo xam ni fu ñu moom rek moo ci mën a génn ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu ko yàlla may. loolu di benn beneen bi mooy macha allah gàmm gi neex na nit ñi ñëw nañu waaye union culturelle de Tidianes de Brescia li ko tax a jóg gàmmu ci la bokk dëgg la waaye li ko tax a jóg ba tax ko jóg mooy lépp lu Tidiane bi di yëngatu rek. ñu xamee ko noonu Sénégal ñu bëgg koo def fii bu doon suñu sago lu ñu yëkkati ngeen ànd kook ñun parce que dinañu jox cawarte te dinañu dooleel waaye gàmm gi bu neexee bu gàmm gi weesoo dootuñu gis kenn wala bureau bi rek ngay gis loolu day xaw a diis ci ñun kon ñuy ñaan rek mbokk yi ñu ànd ak ñun ñu liggéey liggéey bi mais li gën a am solo ci wax ji bii moom dama bëgg ñëpp dégluñu mooy suñu objectif principal mooy ñu am foo xam ni ñoo ko moomal suñu bopp comme ni ma ko waxee woon sànq foo xam ni ñooy ubbi ñooy tëj kenn du ñu ne gaawal parce que loolu moo ñuy permettre ñu mën a def li nga xam ni moom la ñu bëgg a def muy li nga xam ni ngir yàlla déglu leen parce que li ñuy wax nii lu ñu ñor la parce que ñun dootuñu ay xale ay kilifa lañu dañuy bàyyi suñu yitte yépp dañuy nekk suba ak ngoon guddeeg bëccëg di daw ci ginnaaw tarixa bi pour lan pour que rek tijaan bi mën a def li mu war a def te loolu ñu yëg ni li ñu ko mën a may mooy ñu am loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp gars yi fii ñu toog nii tey ñu ngi ciy wax depuis ay weer pour jënd ko pour moomal ko suñu bopp te place la boo xam ni boo ko jëndee doo fi def dara da ngay ñëw rek def say activité muy benn atu mu nekk foo xam ni ñëw fi jafewul nekk foo xam ni bu dee samedi tey ci guddi boo ko doon tojit kenn du la fekk kon mu dajale ay critères am ay parking yoo xam ne bu dee samedi ci guddi nañ fa mën a gaare ba fu ñu neex mu nekk ay critères yoo xam ni dañ ko soxla pour suñuy activité ñuy ñaan yàlla suñu borom bi yàlla motali ñu ko waaye loolu mënuñu koo def bureau bi rek mënu ko bureau bi gaa amoon nañu yéene lépp lu ñu war ñu defal ko ñëpp ñu ànd ko bokk mais yàlla dogal na lii moom bu ci taalibe yi jàppul du yomb. moo tax li may jiital mooy mbokk yi dañu buggoon ngeen dimbali ñu ngeen barkeelu ci li nga xam ne moom lañu ñu war a dugal fii bu fekkee fii lañu ñu nar a am comme zawiya yi jóg leen ñu laaj tuuti mbokk yi ñu barkeelu s'il ku ci mën a barkeelu loo ci barkeelu rek xeebuñu ko laaj leen laaj leen parce que lii yitte la s'il dimbali leen ñu rek ngeen barkeelu ci loo xam ni dañ koy liggéey pour ut zawiya nabar lu ci waay def yàlla na la yàlla ko fay la ko waaw lu waay def surtout ci néegu yàlla <laughs> dimbali leen ñu barkeelu leen ci parce que lii ci ci ci zawiya la jëm muy fii wala muy fu mu mën a nekk. poos baa ngi fi maanaam ku joxe banque mat sax mën ngaa joxe. xaadara jógal gars yi ku yore banque mat sax mën ngaa joxe. pour wan leen ni vraiment liggéey bi lu ñu yitteel la. maam Seex Tijaan. bébé Brescia moo ñu yitteel. jaayante leen jaayante naa xutbul wujud di Seex ñu taxawal zawiyam bi biir Brescia lay lay la la jaayante leen jaayante na xutbul wujudi Cheikh ñu taxawal zawiya bi biir Brescia moo ñu leen jaayante leen rabbul wujuud maam Cheikh Tidiane ñu taxawal zawiyam bi beresiya lay lay la la jaayante leen jaayante na xutbul wujuud maam Cheikh Tidiane ñu taxawal zawiyam bi beresiya moo ñu yite ku joxe yi doo fee yàlla du jaawale jëfi jaaw ñu taxawal zawiyam bi biir siya lay lay la la jaayante la du Seex Tijaan ñu taxawal zawiyam bi biir moo ñu yitteel bu kenn xeeb bu kenn yee déedéet yàlla du jaawale jëfi jaa déedéet ñu taxawal zawiya bébé berasiya lay lay la la jaayante leen jaayante na kutbul wujud tan seeti jaa ñu taxawal zawiyam bi biir beresiya moo ñu yitteel jërëjëf jërëjëf Maxtaar léegi mooy fii ñu nekk nii ci jënd ko la ñu bëgg waaye mbokk yi jënd ko dafa laaj ay garantie dafa laaj ay nit yoo xam ne ison sont disposés à participer maanaam chaque weer ñu cotise mbokk yi ñu déglu s'il vous dimbali leen ma rek lillaahi wa rasuli ñu déglu euh, donc li ma doon wax mooy zawiye mooy suñu yitte suñu zawiye suñu yitte slogan la boo xam ni génnoon na fi waaye dafa xaw a dellu ginnaaw tuuti te loolu du yoon mbokk li am Sénégal ñun buñ ko instauréwul fii kenn dañu ko fi instauré taalibe tiijaan bi boo fexewul ba am fooy fooy wazifa am fooy joxe sa tarixa ku la kenn du la ko defal kon gars yi ñu góorgóorlu ñu jàppale ñu te jàpp ku mu jàppale jàppale sa bopp ñu farlu ci cotisation yi cotisation yi dañ ko oyofal 30 euro la xam naa sax bu ñu amee zow yi nit ñi dinañ def cinquante parce que jar na ko mais loolu bëgguñu mu nekk waa ji bu desalee def ko dañ ko bëgg mu boole ko ci ay farataam bokk ci li nga xam ni buy calculer dépensam am daf koy calculer parce que buñ ko deful noonu du sotti parce que bis boo demee ba jël engagement yi na ko war a respecter kon loolu ma ciy ñaax sama bopp di ci ñaax mbokku taalibe yëpp ku ci waay def sa bopp nga ko defal. su ma lee daal euh, loolu mooy li nga xam ni moom la ma gaa yi santoon ma wax ko. am na am solo loo xam ne xaw naa ko fàtte mbokk yi yàggul dara dafa am suñu benn mbokk boo xam ni ñu koy wax Ibrahima Diouf vraiment nekkoon ci ñun amoon ci taxawaay bu am solo bàyyee ko fi balaa moom am na keneen koo xam ni wax dëgg yàlla moom it lépp lu ñu sanc rek moo ñu ci jiite woon muy Baye As Ndiaye moo ko jiite woon. ñooñu di ay exemple yoo xam ni won nañu ni tey ñoo fi nekk waaye ki fiy jógee suba xamuñu kan la loolu di benn mbir mais dëkk bi tëdde noo xam ni léeg-léeg nit tollu diggante tey ay mbokkam rek ñoo ko fa mën a fekk kon ñu jël benn action sociale boo xam ne dañ ko boole ci suñu liggéey muy ñuy laaj une participation de cinq euros par talibé muy 60 euros à l'année mbokk yi dañ fi am ay gan waaw ki may gis ni day mooy député Wuri Diallo El Hadj ñu ngi lay nuyu. Wuri kaay fi ñu dégluwaay s'il vous dañ fi am délégation bu fi agsi léegi. dañ fi am délégation bu fi egg si léegi délégation bu am solo muy délégation Pastef waaye ci biir délégation bi mu am ci le député de la diaspora muy Wuri Diallo mi toog à côté de moi Wuri ñi ngi lay ziar di ziar ñi nga àndal ñëpp euh, di kontaan ci seen tewaay di ñaan yàlla suñu borom bi yàlla na yàlla fajal leen seeni aajo waaye comme délégation la boo xam ni délégation PASTEF la te li ko jiitu yeneen délégation parti politique jiitu woon nañ fi kon ñoom dañ leen di nuyu rek en tant que PASTEF yal na yàlla fay leen yal yàlla fajal leen seen aajo waaye nag comme dañ fi am député de la diaspora muy Wuri jàlloo di suñu député ñun jaadu na bu teewee ci lu mel nii lu mu gàtt gàtt ñu jox ko benn temps de parole de deux minutes. kon wuri damay dagg man sama intervention comme que temps bi xaw nañoo njat ñu ziar la nuyu la jox la sa wàccuwaay jox ko ñi ko àndal yëpp waaw ñaanal leen yàlla waaw di leen wax ni kontaan nañ seen taxawaay waaw guddi gi nag guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waaye comme yow da bokk ci ñun moo tax ñu laa bañ a jox kàddu kon xanaa ñu bàyyi la rek nga sànni ci ñaari kàddu jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen pour ak seen sant am mbégte tey trop fekkee bés bu mag bi bésu sunu sang sunu yaakaar àdduna ak alaaxira yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ah, ñëw ñu fi nag ci tànk politique parce que fii nag du jotaayu politique dañ fi ñëw en tant que jullit ñëw bokk ak yéen sargal bés bi ah, taataan fi ay loxo ñaan Euh, ci barke bés bi yàlla def nag ñu nekk ci àll bi àll bi metti trop trop nag sunu réew di dox ba ñu nee dañuy tànn ci ay doomu réew mi ñenn ci ñun dem toogal fële ndaw ñi fële askan wi fële ca péncum ndaw réew mi yàlla nag ci kàttanam seet def la ko soob amaana ñun ñoo fi gën tuuti àlliwa ñoo fi gën a jubadi ñoo fi gën a lépp waaye yàlla nam ma ko si ñun kon nag jaarale ko nak si yéen kon dañu leen di sant bu baax a baax kon nag ñun dañuy wax na ñun duñu ay honorable waaye yéen ay honorable yi ñun mbindaanu askan bi lañu ñun serviteuru askan bi lañu kon nag fu askan bi soxlaa fu askan bi teewee ñun dañ foor a ñëw pour taataan pour xam jafe-jafe askan bi pour ñu ngeen mën ñu yabal ñu mën ko yóbbu wut ay saafara indiwaat ko kon nag pour bañ a guddal dañuy ñaan ci barke bés bi ci barke borom bés bi yàlla na jàmm am sënu réew fële ca Sénégal ndaxte nag gis nañ ne euh, ñu ngi ci guddi bu bët tegul waaye nag euh, bésu tey bi lépp luñ ci ñaan yàlla mën nañu ko may kon nag nañ leen ñaan yàlla na yàlla indi jàmm senegal yàlla na yàlla teg loxo Sénégal ak doomu Sénégal ñun ñi nga xam ne tamit ay euh, doomu Sénégal lañ nekk ci àll bi nga xam ne wuti koom-koom ngir sagal sunu bopp ak sagal suñu askan yàlla na yàlla taxaw ñëpp jàppale ñëpp ba lépp lu ñuy wut ci réew mi yàlla mun ñu ko may mën ñu ko yombal képp koo xam ne yaa ngi ci xat-xat yàlla na ci yàlla génnee képp ku nekk ci hôpital yàlla na yàlla fëgg sa bopp yàlla nañu yàlla indil suñu réew jàmm ak salaam ba ñun ñëpp nag mu ñu mën a ñibbi mën a liggéey suñu réew yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di leen sant bu baax di leen gërëm di leen indil nag nuyoo le président Ousmane Sonko bi nga xam ne tey ñun moom mooy suñu njiit e mu yabal ñu ne fépp fu ay doomu Sénégal taxaw fu ñu mun munti nekk nañu fa dem saafanteeg ñoom xamanteeg ñoom jàppalanteeg ñoom parce que nekk c'est dans l'unité maanaam su ñu nekkee benn say rek lépp lu ñu bëgg dinañ ko def parce que nag diaspora bi c'est une force boo xam ne kenn mënu koo weddi ku mën a yóbbu Sénégal 2000 milliards kon nag kooku force nga kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla nañ ko teewee at yu bëree bari bëri tatal ko di leen euh, ànd ak nag une délégation bu mag boo xam ne waa Brescia waa Milan waa Rome waa Udine waa Treviso ñëpp ñoo ko constitué ñu ñëw ànd ak ñun vraiment pour ñu sargal bés bi kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bëgguñu guddal donc loolu moo doon kàddu yi vraiment di rafetlu jotaay bi di ñaan yàlla ñu teewee ko at yu bëree bëri te tal ko jërëjëf Cissé jërëjëf. jërëjëf Wuri député de la diaspora yàlla yàlla dëgëral la waaw xanaa rek ma li mu doon wax te li ma koy tëjee mooy mbokk yi. li ma koy tëjee mooy mbokk yi liggéey bi ñu sumb. ñun rek mënuñu ko kon bu ci ñëpp jàppee mu yomb trop mais bu ñu seetaanee du mën a nekk kon ñi ngi sàkku vraiment ñu jàppaat cotisation yi ku cotiser wul ku commencé wul woon nga commencé di cotiser parce que loolu rek mooy tax ñu mën koo def ñi ngi leen di ñaanal yàlla mu yomb ci yéen lool di leen ñaanal yàlla seen ci barke ci seen njaboot di ñaan yàlla ñu teew fi ay at yu bare bare waaw mais ñuy sàkku rek mbokk yi li ci des ci guddi gi ñu déglu bu ko defee ñu mën a taataan am lu ñu yóbbaale bu ko defee léegi xanaa ñu sant leen gërëm leen rek ma jox euh, Chérif mu àggali programme jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ay na bi kanuzul karami musala kanuzul karami بك النزول كنزول كرمي مستواح كنزول كنزول كرمي أين بك النزول كنزول كرمي خيتك كنزول كرمي أين بك النزول كنزول كرمي مستواح كنزول كنزول كرمي أين بك النزول كرمي مولاي الأمم لشريعة يا رسول الله فمحمدنا والله هو سيدنا والعظ لنا لإجابة خير الأنبياء ساعتي سجرا نتخل خجر سوق الحمر بعشار يا رسول الله فمؤمدنا والله هو سيدنا فالعيد لنا لحجار يا روي من أزكى نسبي حسبي كل العرب في قيل يا نوي مدائف محمدنا هو سيدنا فالعز لنا لهجان خير الانبياء جبريل جبريل أتى أي نبي جبريل أتى جبريل جبريل أتى أي نبي جبريل جبريل أتى جبريل جبريل أتى أي نبي جبريل جبريل جبريل جبريل لو أتى أين بجبريل أتى ليلة الأسرى وربنا علي خادم يا رسول الله فمؤمن أيوة سيدنا فالعين والعنان لحجاب خير الأنبياء نال شرفا والله أفا ما سلف منه وحينته لقيت كونا لا شرفا والله أفا ما سلف منه sopp yoneen loxoy ca kaw na la sharafa wala wafa ma salafa min ummatihi ala sharafa wallahi wala wafa wallahi ما سلف منه أجر ويا جر كلنا على شرف والله عفا ما سلف منه موته لا سرفا والله والله وفا ما سلفا من أمتي صلوا على المستوى كل ما سمع صلوا على مستوايا كل من سمع صلوا على المصطفى يا كل من سمعي صلوا على على المصطفى يا كل ما دولا من صلوا على المصطفى يا كل ما سمعي صلوا على المصطفى يا كل ما دولا من صلوا على المصطفى يا كل ماء سميعا صلوا على على المصطفى يا كل ماء محمد الامين مشام ما سدنا ولا علم كل ما كتمنا نرحل نجم صلوا على المصطفى يا كل ما سمع صلوا على المصطفى يا كل ما محمد الأمين أم الخرى لست أن سايس قاربني ودمع من فرقي في حجري عرب صلوا على المصطفى يا كل من سمع صلوا على بالمصطفى يا كل من محمد لمن ما الامر الا عويسعة سؤال بها سفر سوى أن القليس الزهد صلوا على المصطفى كل من سمع صلوا على المصطفى كل من سمع منت علي بوصل كالحياة لمدى يعذني كل كل ما استقدرته لا لا لا صلوا على المصطفى كل ما من سمع صلوا على يا رسول الله يا كل ما محمد الحبيب علينا وكف ما ضربت أنسل ولا ذكر ما قادم العام من عيب ولم يلوم